Toujours dans votre scandale de ce 23 avril 2024 sur la chaîne des grands événements de cette cette année année vidéo Corée du Sud région de vidéos sax le yaa mën a composé ay fen yaa mën a rangé ay fen yaa ko mën a teg la ci taabal ji ba fen yi nongi nongi kon yaakaar naa ni ñoo seetaanandoo vidéo bi nga xamante ni en tant que opposant moo ko yëkkati woon dafa méngale li nga xamante ne mooy la région de Diourbel ak li nga xamante ne mooy Corée du Sud man nag xëy na jànguma awma xam-xam xawma dara ci géographie mais damay laaj askan bi rek est-ce que Diourbel moo ëpp Corée du Sud moom mi ko waxoon nag démb tey moom la yàlla teg fii nga xamante ne mooy bopp gouvernement bu Sénégal di premier ministre en tout cas bëgg nañu mu indil ñu leeral fan la technique Diourbel moo ëpp Corée du Sud man de dem naa Corée dem naa Asie dem naa Chine dem naa foofu yëpp dem naa Diourbel aussi waaye yaakaar naa ni Corée du Sud su ma doon def un mois mënu ma ko jeexal alors que Diourbel su ma ko tourné pendant deux jours ma jeexal ko tàkk en tout cas lii lañ leen fi indiloon Corée du Sud moo ëpp région de Diourbel. You're the big girl, you're the big boy. good